est-ce que est-ce que façon combat bi Ousmane Sonko di woote est-ce que c'est un combat démocratique parce que Ousmane Sonko euh, keroog ci nemmeeku tour bi euh, Morolan la nekkoon xawma ma euh, il disait ñu ñu ngi chanter le refrain boo ko laalee mooy wuyu xale boobu et il semblait dire aux yéen yéen a war a protéger le le proté le projet. et ni muy waxee protéger le projet moom jàpp na ne comme 2021 gars yi dañoo war a génn xeex jaayante ko ba duñ ko tere mu dem élection parce que pour le moment à moins qu'il ne se qu'il ne un pourvoi en cassation Euh, euh, et que mu mu mu am ci mu am ci mu am ci ndam euh, il est inéligible euh, mu ngi dem ci procès avec Adji Sarr le mais mai ci ni muy waxee ci appel bi muy def waruñu taxaw di xaar ñu koy jaarale euh, ci épreuve yooyu yëpp parce que dañoo war a protéger euh, projet bi est-ce que façon xeex bi muy wax xeex combat démocratique la mais lii laa la raisonné avant nga may poser question bi combat démocratique da nga koy analyser ci combat bi su aboutiree baax na ci démocratie waaw wala déet c'est-à-dire xeex pour réew mi toll foo xam ne du ñu tere nit mu bokk élection ci ay naxa sa këndëng ci ay waxi caaxaan donc hmm. bu de bu bu jaree xeex war nañu xeex bu fekkee ne baax na ci démocratie loolu nga bëgg a wax. non parce que. bu fekkee ne ça permet de faire avancer les choses loolu nga bëgg a wax. ko boo nee combat pour mooy yaa ngi ñëw ci objectif wala nga ñëw ci finalité wala ci résultat il faut se battre. mais yow boo nekkee yow may mun a lan nga bëgg gis nga loolu c'est le lieu de le dire à tout à tous les fonctionnaires de la justice et à ceux qui ont l'impérium à ceux qui jugent que gis nga. lii tax tey sénégalais bu nit duggee ci butigam jël alalam mu ñëw porter plainte lii tax bu jigéen bu ñu gundu bu ko gundu xatalee ci néegu séyam mun a ñëw def demande en divorce lii tax tey nit bu ñu bu ñu ko naxee ci alalam mu mun ñëw saisir tribunal parce que dafa jàpp ne foofu la mën a régler mbiram mooy la justice institutionnelle publique mais bis bu ñu demee ba justice boobu nit ñi gis ne régleetul seen problème c'est la justice privée mooy waral ngay gis yenn quartier yi bu ñu jàppee sàcc yi dañu koy dóor dañaan ñu bëri dañaan boo ko bàyyee boo ko boo ko boo ko yóbbee tamit kenn du ko sanctionné donc boo leen jàppee gis li ma bëgg a wax foofu li ma bëgg a wax mm-hmm. foofu mooy nan nga bëgg nit ñi def su fekkente ne un acteur politique comme président Ousmane Sonko digganteem ak justice ñaar la lii jugee ci justice jëm ci moom wala ci ak lii jugee ci moom dem ci justice lépp lu jugee ci moom dem ci justice lu mu demande ñu débuté ko ci lépp luy jugee justice jëm ci moom dañuy violer ak ay ay yelleefam may mun a man ak yow yëpp ki jàng droit ki jàng droit ñëpp xam nañ ne en matière correctionnelle président Ousmane Sonko obligé wul dem tribunal yaa ngi ci yoon bi coo am ne waa léegi damay ñibbi sama kër je ne suis pas obligé d'aller au tribunal ñëpp di gis vidéo yi nga ne ko par force da koy yóbbu tribunal ñëpp xam nañ ne en matière correctionnelle délai d'appel yi un mois la nga enrôler l'affaire bi avant avant les délais d'appel ñëpp xam nañ ne nit ki nga xam ne cité wuñ ko à personne maanaam yëgal ko ko à personne par huissier ne ko ñëwal mu jot kayit bi ci loxoom te ñëwul benn yoon ci audience bi muy comme en matière comme appel bii mu amoon ñëpp xam nañu c'est un jugement par défaut nga ñëw ne parce que moom siw na xam na ko jugement défaut réputé contradictoire la pour bu mu exercer voie de recours bu ñuy opposition ak leneen ak leneen ak leneen nit kooku noonu yëpp nga mais kooku ban moyen la am parce que wóolu yoon moo tax muy saisir yoon wóolu yoon moo tax doyen des juges woo ko ne ko kaay nga wuy si ma mu ñëw wuy si wax na ko keroog rappelé na ko musul bañ a soumettre à la justice lu dul bi mu yëkkatee ne am naa immunité parlementaire te bi ñu ko yëkkatee malgré que procédure bu jaarul yoon dafa dem wuy ji kooku li mu war a defal justice de ce pays yëpp def na ko da nga koy xool ci yeneen sénégalais gis Ousmane ko mu am aura bi mu am mais ñun parfois nga dajeek ay sénégalais yu fekk ci bureau yi wala ci tribunal yi ñu ñëw di défier justice devant te xam nañ bu ñu ko defee dañ topp outrage et cetera di leen ci tëjaat. mais dañu koy def parce que dañu sës parce que dañu leen di def loo xam ne parfois du yoon. donc il faut nga nangul nit ñi ne. Mm-hmm. dans tous les pays du monde nit ñi boo leen xàllalu yoon yi ñu di joxe seen i droit te justice moo war a garantir droit yooyu mais naturellement yeneen moyen la nit ñi di jël parce que moo fi sës. et moyen boobu te gënul leen yow yow tey ban sénégalais la gënal. manifestation yow gis ngeen may mën na nu nu nu nu méttee suba ngay xëy ne damay poser acte de manifestation pouvoir bi dala ko tere. mu leer la ne boo génnee fii lacrymogène mu ngi lay xaar ak mu safee mu leer na ne boo génnee mun nga ko perte sa liberté mu nga ko perte te nga waroon dellu sa kër bàyyi fa sa njaboot bàyyi fa sa papa bàyyi fa sa yaay bàyyi fa sa soxna nga am sa liggéey mun ko see jaaree ñàkk da foog ne dafa neex si ñii ñu koy def nii. donc le minimum le minimum le si si le minimum mooy même suñu com suñu partagé wul seen combat mooy ñu compatir le minimum mooy ñu respecté leen parce que li ñuy def neexul mais dañoo sës. donc si je te comprends bien. comme euh, da nga joxe kaaw femme bi bëgg a divorcer wala ki ki ki ki ñu sàcc alalam bu fekkee yéen da ngeen jàpp ne justice mënatu leen jox solution la et donc vous allez choisir le moyen d'autres moyens bu dul bu dul les circuits réguliers les circuits normaux maanaam dem ci justice lu mu la may nga jël da nga jàpp ne dañ nañ choisir yeneen moyen comme naturellement tout le monde mm-hmm. gis nga tey yow mi bailleur mi am sa kër nit dëkk fa nga loué ko muy jouir des ko te fayu la nga nga def commandement ne ko fayal mu ne mu fayul fayul dans les trois dans dans le dans trente jours nga saisir yoon pour ñu expulser ko nga am sa titre de propriété nga soxla nga am sa titre exécutoire li ñuy wax titre exécutoire maanaam sa décision nga ne da ko war a expulser mu daal di def ay référé sur difficulté yooyu ñi débouté ko ci lépp nga war a dem pour génnee ko fi mu nekk parce que waru fi occupé te yow si lii ngay amee sa sa sa ñaq est xam nga ne bë bëri na ci cas yooyu nit ñi bu ñu amee titre bi jox ko huissier pour huissier bi la ñëw pour jéem kii ñu bañ mu requérir la force publique muy gendarmerie wala police parce que citoyen bi mën na requérir la force publique moo tax ay force restera à la loi le greffier appose ce qu'on appelle la formule exécutoire su ko ci apposé mooy jox nañ mandat à tout les forces tout les forces publiques huissier bu leen ko yóbbulee ñu exécuté ko nit parfois day dem ay weer huissier yi def dara wala bu ñu demee def jox ko force publique duñ ko exécuté souvent nit ki xam fuy mujj jël ñaari ponkalam ñu dem dajji bunt bi génnee bagage locataire yi da ngaa foog ne koo neex ak fi mu jaar ci procédure. six mois donc il faut il faut faire usage de la force. il faut déedéet li nga war a wax mooy il faut. que ceux qui incarnent les institutions c'est-à-dire les personnes qui les animent respectent les voies démocratiques may nit ñi fu ñuy exprimer fu ñuy défendre seen droit ak seen liberté ci yoon yu mu war a jaar su ko deful conséquence bi la leen kon bul ne il faut ñoom ñu def nangam il faut ñi war a def li ñu war a def ñu def ko suñ ko deful naturellement par la force